waaw xam nga sama taxawaay taxawaay républicain la peuple bi nga xam ñoo ma tànn na ma wax ne ma na ngeen dem wuy ji dialogue bi président Pape Diop nekk Umra wax ne na ngeen dem wuy dialogue bi FNR bi nga xam ne ci la ñu bokk muy maanaam mboolem parti opposition yëpp ñu d'accord ni nañu dem wuy dialogue bi kon loolu fekkee am na ñun bu fekkente ñoo représenté Pape boo ko gis-gis ci parti ci euh, FNR bi président Mamadou Decroix yor suñu kàddu yoon def na ñu dem wuy ji déglu ndax nit ki tamit bu la wooyee da ngay dem nga wuy ji ko te ñun li ñu waxoon ne maam moom la ñuy tax ñu dem wuy ji ñaar yooyu yëpp Macky Sall d'accord na ñu tànn personne neutre ba pare lépp lu ñu jëlee si dialogue ñu appliqué loolu mais loolu lañ soxla bu fekkente loolu soxla nañ ko nag jox nañu ko ñun li nga xam mooy lu ñu war def nañu ko démb woote waat nan ñu ngi continuer commission bi pour jéem a xool nan la ñuy àggale pour euh, waxtaan ba taxawal loo xamante ni Sénégal yëpp daañu mën a gis seen bopp ñu dem si ay élections yu ñu mën a ñëwaat jàmm xool économie gu réew mi fu mu toll waxtaane affaire xale yi ñuy sàcc ak xale yi ñuy rey ak jigéen ñi yooyu yëpp ñu waxtaan si mais loolu yaakaar naan képp koo xam gor nga wala nga bëgg lu baax loolu ñor na la te aussi am na yoo xam ne ko d'accord ndax mënu ma nga bokk si benn kuréel signé li nga xamante ne mooy d' accord represente moom Djibril Kura elbi, représenté loolu ba pare ñaareel bi jour bi nga xamante suba la dialogue ñun ñëpp ñu d' accord si communiqué boobu muy waa réew mi Déthié Fall moo ko représenté woon ma représenté Pape Diop Mamadou Diop Decroix fa Malick Gakou ñëw teew ñu signé lépp ci kanamu Malick Gakou ñu yónni communiqué yi ñu wax ne ñëpp daan d' accord après ñoo ko seen ginnaaw ñoom demuñu kooku tra trahir la kon loolu jàpp naa ne bu ko defee il faut peuple bi joxe seen jox ko man waxuma nga gi mu wax kooku nekk nag la mu wax ñun ñëpp la engagé am na loo xamante aussi maa ngi dégg Ousmane Sonko di ko wax kooku dafa saaga askan wi am na yu fi xamante yoo xamante duma ko may tey duma ko mën a éwal c'est acceptable moom mu dak na sa nekk xale di wax ni ña fa nekkoon dañoo complot Macky Sall kooku bu ko waxee waxul dëgg te aussi jàpp naa ne loolu war na jégalu Sénégalais yi ndax xamadi warul man tax may wax yoo xam ne ko wax bu demul na xam ne demul mais bu saaga ña nga xam ñoo fa demoon ndax sëriñ Mountakha mun sëriñ Touba mënoon yaakaar te woon na fa ay kilifa doomu sëriñ Fall demoon doomu sëriñ Sow demoon na fa te ñoom dox tànk caaxaat kon jàpp naa ne buy wax na xool baax lu ñuy wax moom am na droit bu ñu defee dialogue askan wi moo ñor sëriñ bee ñor lu baax moo ñu ñor jàpp naa ne kuy xas Macky Sall man dooma si génne mais bu woote loo xam mooy jàmm ak luy defar réew mi bu président Pape ne demal damay dem wuy ji loolu ma ñor mais xam nga 94 milliards yi mom moko waxone waxoon licencié ko moom mi ko sommé na ñaanal bop ñun doon nañ ko défendre mais jurut défendre li am solo moy ñun ñi nga assemblée nationale commission bokku ñu ci en tout cas ñi ngi ko suñu liggéey du mom mi nga xamanteni moy mooy taxati gis xañ ngañ opposition bi opposition donc jappalé ba tay li moom mu am ko japp na ni du rolam quoi ñun nak bu fekkente ni yaruwuloo daanaka lu lay wax ñu mel non nga koy mëna wax quoi te yàgg na si mel non en tout cas li moy dina nek dernière fois mu koy gën kaddom di wax ni ñu wujoon Macky Sall dañu trahir peuple bi tam bu ko waxee man ci la bok Serigne Sidi Mokhtar Serigne Serigne Mountakha Bassirou ñam ñu yónni woon ca la ñu bokk te ñoom ay kilifa te sëñ na ko jégalu nu mu gën a gaaw jégalu kilifa diine yi te aussi xam ni loolu mu wax moom la engagé mais ni nga xam ñooy opposition bi yëpp d' accord nañ si li moom jël du courant def d' nañ si aussi tamit li mu wax te incha allah dañ ko continuer luñ si góobee gar ko je vous remercie